mbirum ak ngóor jigéen kenn du ko daganal Sénégal du fi mës a xamee lii la njiit réew mi Macky sàll tontu njiiti jëwrin yu réewum Canada Vox Populi moo ñu ko xamal bii nag mooy ñaareel bi yoon ginnaaw président bu Amérique ba woon Barack Obama Macky na ko déet du fi xamee njiiti jëwrin yi Canada tamit Macky ne na ko seetil beneen réew waaye Sénégal moom ñu aada suñu diine suñu cosaan fa ñoo xamul jëf ju bon ju ñaaw jooju waxuma di ko daganal ci fowut ci caaxaanut ci maslaa sax defut ko ci nag laa laas yéene kaay ne makki kay benn président ci àdduna bi wala kilifa mënta tax mu soppi taxawaayam ak dogal bi mu jël ci góor jigéen ñi la soleil yéene kaay dëggal ko ne makki kay li wax leer na nee na moo bañ ba tëdd ci naaj wi lànk ba ut ku ko lànkale ci daganal ngóor jigéen ci Sénégal dëgg la nag naam réew mi lu nekk mi ngi fi xam lu nekk nit ngi koy wax te kenn du dal sa kaw yaw seetal soxna si ñuy wax Seyda Zaman mi ngi ni di woote na ab yonentab yàlla la xam na fi tamit ñuy duppee ay yàlla yàlla góor jigéen yaa ngi fi lesbiennes nag daganal ngóor jigéen moom liberté Sénégal yeggut foofu source ay ñu ne kaay ne borom du mën a déet du mën a waaw démb de nee na déet moom makki ci mbiru góor jigéen yi li mu ci wax leer na les éco yéen a kaay na leen hée def leen dànk de makki li wax leerut de ndax ba muy làkk wolof lam tontu leer na waaye bi muy làkk français lam fa tontu leerut de ayaw seetal ci français makki fa wax ne fësal ak ngóor jigéen ak yeneen yi ni mel fañ koy tere Sénégal terewul nag ñi nga xam ne tànn nañ nekk ay góor jigéen kenn du leen génnee réew mi ah seetlu leen rek tontu boobu dal na olof waxut loolu ci olof daf ne duñ ko fi mës a daganale te duñ ko daganal lu ko terew làkk loolu tubaab waaye soppi wax ji maam Matar Gueye na leen hey yéen waa Les Échos bu leen fi nekk di sonn gis nga ngóor jigéen fii Sénégal kenn du ko légaliser incha allah nag kàddoom yaa ngi ci vox populi te loolu na leer ci bopp sénégalais yépp ak àdduna bi nag laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne xale bu góor dawalkatu Jakarta ba faatu woon ci diwaanu Fatick ñu wax na policier yaa dóor ba mu dee autopsie ba résultat yi génn na a nee nañu kenn dóorut ko ba mu dee dee moo ñëw rek mu dee la soleil yéen a kaay ñi ko xamal le quotidien yéen a kaay na ko loolu nag docteur ya wax ne kenn rayut ko moo tax dawalkatu jakarta yu diwaanu Fatick démb fa ñoo xar yokk seen ak mer wàccaat ca mbedd ya yënga-yëngal taal pono yeeyaat fa fitna ndax ne nañ loolu docteur yi wax amut seen mbokk mi Lamine Koyta fañ koo dóor ba mu dee te police yaa ko rey waajuru xale bu góor bi ñoom itamit fa ñoo xotti kayitu autopsie ba ne nañ loolu waxu caaxaan-caaxaan la seen doom dee direct news moom xëy di laajte na tekk-tekkaar ak Ablaye Wade gi bi mu jógee Guinée ba quotidien xëy àddu ci jafe-jafe yi am ci réewum Sénégal nga xam ne fépp ay métti maam booy jaawo ne gis nga ñun fa ñoo lajj Sénégal nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na tubaab bi doon tëddee xale ya doon jàng football ca centre Dakar sacré kër ba yóbbu nañ ko kaso tëj ko libération moo ñu ko xamal donte moom tubaab bi ma ngay weddi aka waat ne moom fa doon maasee xale yi rek massas waaye mosul leen a tëddee de l'observateur na ko waaye léegi xaar kaay déglu wax policiers yi ne nañ ko nga doon maase naam waaye massas ba fa doon rax na ci koo xam ne sax nee na fanaanoo nga ko lëmm doon ko tëddee xanaa highway di fay jeex ba tey libération nañu oustaz ba nekkoon wakaam moom itamit ñu tuumal ko ne fa doon tëddee taalibeem ya xale yam doon jàngal ca koñ ba moom it yóbbu nañ ko kaso ma nga ca rëbës keneen ku dem rëbës ca kaso ga jijaak Diouf ba doon liggéey ak Viviane Ndour woykat coowal tappale visa ya moo ko yóbbu kaso l'observateur moo ñu ko xamal li mu ñu xamal moom turbine yéene mooy ne réewum Sénégal ba léegi français yi ñoo ñu coloniser maanaam ñoo ñu moom xabal ñu seeni bët ñu bàyyee ñu yàqu ba léegi tubaab yi ñu ngi def ay jaam Sénégal li gën a am solo ci réew mi français yi ñoo ko moom wàllu essence Total français yee ko moom wàllu banque EGBS français ko moom wàllu télévision Canal Plus français ko moom wàllu yónnee xaalis Orange Money français ko moom wàllu njënd ak njaay Auchan français ko moom Sénac ak yeneen ak yeneen ba pare ñu ne am nañ indépendance xam nga ne loolu ay naxay la feneen fu naxante am mooy diggante footballeur yi ak mannequin yu jigéen seen jëflante ay mbir yu garaaw fa fay moo ñu ko xamal li mu ñu xamal moom stade yi ne kaay ñoo gën a cher fi mu toll nii Kalidou Koulibaly Sadio Mané Krépin ñeneen seen njëg fa yokk ay millions lañ doon jar fi mu toll na ñii ci ay téeméeri téeméeri milliards record yéen a kaay yokku ci na Sadio Mané moo topp ci Neymar ci footballkat yi dàq dribble ci àdduna bi saajo sax moo raw Messi ak Ronaldo li rawut sunu lamb yéen a kaay mooy bëgg-bëgg ña wër Boy Niang 2 nee nañ juróom-ñeen fukki millions la ñuy sàkku ngir bëre Balla Gaye 2 ña weesu bëree ndax ñoom fañ doon xeex mooy diggante ab professeur ak élewam ay vox populi moo ñu xamal mbir mu garaaw bu amee ca kër ma ba jaxu diiwaanu Kaolack ndangaan département bu Nioro ay professeur bi daal foro paaka bojj ko jam ko élewam ba doon jàngal mu tàlli ñaret ñu jagar-jagare yóbbu hôpital doonte deewut nag waaye sonn na de gaañ na ko gaañ-gaañ yu métti waajuru xale ba ña nga yóbbu yëf yi ci yoon doonte am na ñu cay dox tànk jàmm la leen boole nag yéen a kaay bi nee na wàllu kayitu composition waa ma ne professeur bu jam élewam paaka elew bu jam paaka professeur am ña ngay xeex wala boog professeur ba yegg na ci élew bu jigéen ba mu doon jàngal Sénégal léegi loolu nga fiy dégg te bu njëkk ba élew bu gisaan professeur am ci mbedd mi sax fay daw làqatu ñeme wuñ leen woon caaxaan am njàngale mu baax léegi nag la woon man laa xamul lu ko woon ni